salaamaaleykum mbokk yi jërë ngeen jëf waa Marseille ndaje mi am na solo yaakaar naa kàddu yu jibe kàddu yu am solo moo ji jibe ci ndaje ba ndaje mi jeex dernier message bi nga xam ne moom laay wax fépp fu ab mën a nekk ci àdduna bi moo xam fu mën nekk ci àdduna bi rawatina Sénégal na mel ni projet bi day door a commencé tey na mel ni li ko guñu woon dara ñoo ngi door a commencé moo leen ci dugal ñu fàttalewee su ca dëgmal li ci kanam yi ñëw maa ngi ci soññ ab patriote fu mën a nekk ci àdduna bi rek dañ jàpp ne projet bi tey la commencé la na ko fàtte bu mu ko xoolati su xool ci lii ñëw ñëpp laa ko dénk